asalaamaaleykum man maa ngi tudd Louty Sow di madame Lam tudd Louty Sow dëkk fii ci Thiénaba doo fii ci Thiénaba à 1961 fas jom bi maay présidente bi groupement yu booloo la def benn association di liggéey mais ñu am kayitu fas jom Bass Diom ni mu tàmbalee mooy euh, sunu activité principale noix d'acajou la dañ doon liggéey ci noix d'acajou bi dañ doon liggéey ci noix d'acajou bi di ko def maanaam dafa am ci sunu àll bi ñu dem di ko wuti di ko dajale di ko defar di ko saaf di ko dajale di jox kenn mu jaaye ñu toog ba yàgg euh, xalaat ne ñun war nañoo mën a booloo jaaye ndax kenn lañ daan jox mu jaay suñ jaayee mu neex ba yàgg ñu ne kenn ku ne du bëgg a dem a jëmal demal boppam daal léegi nag benn préfet bu fi nekkoon bu tudd Aline Diop daan nañu pourquoi pas yéen mun leen a boolee seen groupement yi comme yéen yéen a ngi ak seen activité noa Dakaju la ngeen dajaloo woote liggéey yéen ñëpp ngeen booloo liggéey ci noa Dakaju defar seen i kayit ci lañ woo groupement yi fi nekkoon taxawal benn association ñun ñëpp ñu bokk di liggéey noa Dakaju bu ñu demee benn weekend dem jëndi noa Dakaju jënd 11 tonnes wala 15 tonnes séddale ko groupement yi di dem liggéey bu weer bi deewee su 15 jours jotee ñu ñëw fay ñu dem jëndiwaat ñu dajalewaat di def noonu dañ ko doon jënd fii ci dëkk bi li fi nekk dañ koy jënd ba pare piir ñu dem jëndi Pire ak Sokone ak Casamance fu ne daal lañuy ñuy jëndee mu jëntal gi léegi nag ñoom xam nañ ni ñun bëgg nañ ko ñoom ñoo koy indi diñ ko jaay waaw bi ñu nekkee ci noix d'acajou bi nag ba ci ka ba mu yàgg indien yi ñëw nangu ko ñi ci dugg bari ñi am rupture ci lañ ne duñu toog ñun duñu toog comme te xam nañ liggéey bi te xam nañ ne jigéen bu liggéeyee dina jariñ boppam dina jariñ doomam jariñ boroom këram kon def ya defatul daal yoon defatul ñu toog nañ làmb leneen lu ñu def ci lañ dem di defaree euh, céréale bi di jënd dugub di ko defar cere ba mu baax di ko jaay ci waa dëkk bi bi mu demee nag dinaa dëkk bi di ko jënd ba ñeneen ña nekk ci ginnaaw dëkk bi di ko jënd xombal ak Thiès ak feneen ñu continuer céréale bi ba yàgg ñu boole ci jus yi mu bisaab yi ak siro yi ak yooyu yëpp mburaake yeeg yooyu yëpp dañ koy defar di ko jaay noonu bii ñun bi ñuy jënd noix d'acajou ñu doon dem sama kër fa lañ ko doon sotti di ko séddale groupement yi bi ñu demee ba nga xamante ne bii waa Green Sénégal. ñëw fi di bëgg a liggéey ak ñun ñu ne nañu war a wut màkkaan daal dem ci mm, kii président communauté bi fi nekkoon Talla Seck moom moo ñu daggal fii jox ñu ko ñu jël sunu xaalis bi ñu doon jëndee tabaxal ko sunu bopp. waa Green Sénégal jëndal ñu benn pour bu ndaamaraas après di nga ko xool après daan ñu jox benn fonds rotatif bu un million ñu jël un million bi di ci jënd di dem ak dikk produit yi ñuy defar fii. ku ci ngénte fii xam nañ ko ci ñun ba ku ci ngénte da ngay ñëw jënd si araw mbaa nga jënd si sànqal ak tamit borom bitik yi dañuy ñëw jënd si euh, Thiès dañuy ñëw jënd si di nga gis ñuy def ngénte ba pare ku dëkk dakaar ñëw lekk ci laax bi daal di jóge am xew dakaar ñoo commande si fii fii ba Ndar dañuy woo ba léegi sunu produit sax mi ngi dem fii ba Maroc ndax am na ñoo xamante ne dañ koy jënd yóbbante ko seeni mbokk yi nekk Maroc ñooñu di ñu woo ci numéro yi naan ñu dañoo bëgg produit bi am kuy ñëw fi tam di jënd di ko yóbbu. 674 membres ni ñu organiser mooy 18 groupement la ñu ngi intervenir ci 5 villages chaque mois benn groupement mooy ñëw ñëw liggéey chaque mois weer weer bu nekk benn groupement mooy ñëw. ñëw liggéey fekk fi benn équipe bi nga xamante ne bii muy présidente yi bureau directeur bi ñoom ñoo fiy ñëw di gérer benn bureau boo xamante ne chaque la cinq dañuy daje bureau directeur mooy 18 groupement yi. mooy comité directeur bi ñoom ñooy ñëw groupement bu liggéey bërigo boo liggéey ñu fay la maanaam nga nga sebet ko tay ko weer ko ñu fay la 4000 francs suñ jëlee conditionnement bi ñi nga xamante ne ñooy dugg ci biir bureau directeur bi ñoom tamit il faut ñu liggéey ndax ñu mën a am dara ñoom tam ñooy nekk ci biir di def conditionnement bi di lay di paqueté barigo bu ñee defar cent kilos bu ñee defar ñoom buñ ko layee ñu fay leen 2000 francs léegi ñii bale ñu fay leen 10000 ñii fóot bagage yi ñu fay leen 10000 ñii fóot darab yeeg di baleeg yooyu. Ah, asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp. di baal àq ñëpp di balu àq ñëpp di kontaan nag tey jii bi ngeen ñëwee ci 8 mars di journée de la am kon maa ngi sargal sama moroomi jigéen yëpp di leen nuyu man soxna na koy Sow laa tudd nekk secrétaire général GIE Fass Jomb Thiénaba 8 mars bi de xanaa bég ci rek ndax fekk nga noonu ñuy liggéey mais nag ñu ngi feete fii ci sunu biir ndax liggéey rek feete la yëg nañ sunu bopp bu baax ci li nga xam ni ñu ngi koy liggéey fii ndax boo duggee fee gis ko jigéen ñi ñoom ñëpp ñu ngi sol seeni blouse nekk ci seen liggéey tey jii ca 8 mars ndax 8 mars nit ki dafa war a yëg boppam xam boppam du tëgg ak fecc rek du folklore da ngay feete journée bi xam sa bopp sentir sa bopp yëg sa bopp xam ne yow tu es libre tu es assez autonome loolu la ñuy defe tey jii boo ñëwee tey ci suba vraiment jigéen ñi daje nan fi ñu am nu ñu doxale ba wane ñun ne tey jii ñu ngi ci 8 mars association bi nag ni muy doxee maa ngi dégg président da ci wax association bi mu ngi nekk 18 groupement di intervenir nag dans cinq villages muy Thiénaba Gare Thiénaba Seck Mbaaba Xay ak Thiabaare nekk nañ 674 personnes am na nag quelques hommes ndax loo gis lu ne góor ñi ànd ci dafay am solo di la xalaatal di la jàppale ngeen bokk di jàppalante góor ñi nag bari ci fukk ak benn rek la. waaw loolu nag détails yi xam nga ah, c'est en matière de comptabilité dugg nu lool ci comptabilité bi noonu mais nag ñu ngi ciy gis suñu bopp. ndax jigéen ñi nga xam ne ñu nga fi nekk fee di liggéey ah, ton bu nu liggéey ñu fay leen ñi nga xam ne ñooy def uh, finition bi aussi fii kenn ku ci ne am na lu nga xam ni di nga koo am kon daal xaj na bari na bariwul mais ñu ngi ciy gis suñu bopp. bien posé nga ma question bu ma neex parce que manuellement lañ koy def tey jii bu fekkoon dañoo amoon commande ay toni ton am conteneur dinañu jaaxal. ndax manuellement dañ koy liggéey te am na ay machines yu nga xam ni war na noo mën a liggéey muy machine yi nga xam ni dañuy araw machines yi nga xam ni dañuy toj cere ji di tay cere ji ak ay séchoir yu nga xam ni dinañ mën a weer cere yi ndax boo déggee ñuy defar lu nga xam ni dafa jublu ca lekk dafa war a am hygiène équalité donc boo xoolee fan yee ci ginnaaw bi muy ngelaw dañu arrêté suñu liggéey parce que fi ñu koy weer nu mu am benn poussière bëgguñu am ñu ma am benn suuf donc su fekkoon amoon nañu ay séchoir bu boobaa liggéey bi du tardé du taxaw kon ñun dañuy lancé appel ku mën a ñëw dikk jàppale fas jom fii ci ba muy jigéen ñu nga xam ni ñu ngi taxaw di daan seen doole di jàppalante ak seeni borom kër di jàppalante ak seeni doom ci wàllu njàng ak wàllu santé fi mu nekk nii jigéen ñi. kenn ku ci ne am nga mutuelle de santé dugal ci sa waa kër dugal ci sa borom kër ba nga xam ni doo am xalaat benn problème mu santé muy couverture maladie universelle bi ndax présidente am na crédit bu nga xam ni ñu ngi koy def crédit bi dafa am 3 pour yu nga xam ni dañ ko jagleel wàllu santé 3 pour cent yooyu dajale na ko ba da koo génne jëndale ko ay jigéen ay carnet cotiser leen lépp rek bëgg ñu autonome ci seen wàllu santé ndax ki feebar du tara liggéey donc dañuy bëgg ku fi nekk rek nekk en bonne santé sa waa kër nekk en bon santé bu ko defee boo fi dee liggéey da ngay liggéey aisément doo am benn problème mbaa benn jaaxle bu nga xam ni yaa ngi koy jaaxle kon nag ñun ñu ngi tàllal suñuy loxo yi parfois dama koy wax tey ci suba rek maa ngi koy wax dama ne état bu xooloon tey ji wàcc si ci base bi xool jigéen ñi nga xam ne ñu ngi góor góorlu xam ne seeni moyen bopp la ñuy defee ndax lii suñuy moyen bopp la dégg naa président di ko wax ndax commencement danoo commencé ci suñuy cotisation di jëndi di jëndi ba ci yàgg ñu ne nan wut siège ñaan président communauté rurale mu may ñu fii bim ñu fi mayee la nga xam ni moom dañ daan jënd ji ñu tabaxee ko fii bin ko tabaxee commencé di liggéey par la suite ci la ñu Green Sénégal ñëw taxaw di ñu jàppale ci fuur bu nga xam ni moom la ñuy saafe ndaamaraas muy Green Sénégal en 2008 bi Green Sénégal defee loolu Promaire aussi gis ne kat ñii ku leen jàppale ñu dem Promaire ñëwit moom it dugal ci loxoom ARS gi nga xam ne mu ngi nekk fii Kayre te soxna Marème Kayre jiite ko moom it tamit dox ci ay jéego yu am solo ndax crédit rotatif bi nga xam ne moom lañ fi jëkk a def moom moo nu ko jëkk a jox ba pare defal ñu formation kon kooku mu ngi xeex. moom tamit di jàppale jigéen ñi nga xam ni vraiment ñu ngi góor góorlu di taxaw bin jóge foofu Xadi Faataal moom tamit afaawoo dikk taxaw jàpp ci ñu jóge ci bint Gueye mi nga xam ne moo représenté FEDA piir moom it itamit gis na jigéen ñii kat ku leen jàppale ñu dem mu dikk moom tamit taxaw ji kon vraiment ñun am na ñu nga xam ni ñu ngi jàpp waane jàpp du doy jàppale état dafa ëpp maanaa ndax fii boo fi ñëwee di nga xam ne unité de transformation bu nga xam ni dafa war a répondre aux dëgg la dañuy jéem a góorgóorlu nag ba ku nu fekk-fekk ñu fi bu nu sañoon unité bii dafay gën a répondre aux bu ko defee ñu am séchoir ca kaw am ay machines yu doy sëkk ndax machine kat du doy te état yaakaar naa ne am na ay machine soq machine wol machine diggante gi machine yëpp war nañ ko mën a am kon loolu ñu ngi tàllal suñuy loxo ñu jàppale ci ay machine ndax machine boo ci liggéey ñaari at ñett ba ñeent dëgg la di nga ko amortir mais nag état am na machine yu nga xam ni war nañ ñu ko mën a fekk fii jox ñu ko xool suñu unité na nga xam ni moom la ñuy liggéeyee ñoom tamit ñu war cee mën a jàpp ba nga xam ni suñu unité dina mën a répondre aux normes ministère de la femme fan yi rek bind nañ benn lettre yóbbu ko fa man mi maa ko yóbbu bi ma ko yóbboo dañu koy demander audience ndax euh, xaj na say soxla yëpp mënoo ko joytu lii dañ ko bëgg a demander audience bu ko defee suñ demee toog ak moom expliquer ko wan ko fi nu commencé ak fi nu toll luñ ci mën a jàpp taxaw jàppale ñu ci ndax fii kat jigéeni jàmbaar rek a fi nekk tey fi tey jigéen ju nekk bu la waxee la muy def ci waa këram la muy def ci ay doomam yi nekk école di dem ak a ñëw vraiment da nga naan ñii ay jigéen ñu jàmbaare lan ñu nga xam ni jar na noo jàppale jar na noo taxaw ci formation surtout ay formation am na ay formation dëgg la muy Green Sénégal muy Promer muy AFAO ak FEDA yooyu yëpp ñu ngi ñuy defal ay formation mais formation du doy toujours renforcement de capacité toujours ndax équipe yi day gën di bare rek dañuy gën di taxaw gis ko saako yi fi mu ne ñu ngi koy yóbbu tey bu fekkoon manuellement defuñu manuellement kon vraiment dañuy gën a am yenn quantité yi tey ku ñëwoon ne conteneur la soxla dinañ ko man ndax am nañ personnel bu qualifié bu am ay formation mais dafa am lu des manuellement mënul ci liggéey yenn yu baree bare ndax am na machine yu araw am na machine yu nga xam ne ñu ngi toj cere am na machine yu nga xam nii ñu ngi def defar sachet yi ndax boo gisee sachet yi man manuellement lañ koy def donc loolu yëpp manqué na fii ci unité Maam Ndaak Fall bi nga xam ni ci biir Fass Jom la nekk ñuy liggéey ci céréales locales fruits légumes fruits et légumes ak noix d'acajou ndax li tax ñu boole ci céréale locale ba tey mu dem ba egg fii booba noix de jour rek lañ daan def ñu dem ba nga xam ne matière première bi dafa raar ndax booba indien yaa ngi fi di jënd augmenter prix bi ñu ne jigéen ñi Thiénaba li ñuy jàmbaar ak ni nu mel yëpp suñu sañoon nañ vraiment jigéen ñi duñ toog ñàkk liggéey ñu ne nañ ci def céréale locale ci lañ commencé nañ céréale locale muy unité maam Ndaak Fall ñu tuddee ko waajuru Thiénaba euh, Amary Ndaak donc loolu wuy na tur wi ndax boo xoolee fi ne céréales vraiment dañ ciy produit bari na xaj na manuellement la mais bu amoon yeneen i machine dina gën a mën a demee neneen fan yii rek ñu toogaat waa Green Sénégal aussi boole ñu ak ay partenaires bari ba ñoom ñu ñu defal formation transformation fruits et légumes tey rek ñëw nañ suivi. ndax ñoom bu ñu la defaree formation ba pare dañuy ñëw di la suivre di xool ba xam ni ngay doxalee ndax répondre na aux normes ca norme yi am déet kon loolu moo am solo kon ñu ngi gërëm di sant Green Sénégal Premier bi nga xam ni moo fi jëkkoon a taxaw ak collectivité locale bii nga xam ne fi la nekk ndax buñ demee ba mën a samp fii di liggéey li ñuy liggéey dañuy ñaanal ñi nga xam ni ñoo fi nekk ci base bi na nag Baye Cheikh Tidiane Seck xalif général des Tidiane de Thiénaba nga xam ne moonu fi gën a yaatal ñaanal ñu fi ku dëkk Thiénaba rek ñu ci bari jaar nañ fii photo yaa ngi nii ngay gis jaar nañ fi ñaan fii kon seenu ñaan du naax saay fii kon fas jom fu mu àgg rek dañ koy séentuwaat ci kanam kanam kon yal nañu yàlla jàppale ba di nuy séntu ci état ak ñeneen bonne volonté yu nga xam ni amaana ñu ngi jàppale jigéen nanu xam ne fii jigéen ñu jàmbaare lan jigéen ñu am jom jigéen ñu fas jom ñu nga xam ni bëgg a liggéey jàppalante ak seen i borom kër jàppalante ak seen i njaboot seen i doom. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen dalal jàmm man maa ngi tudd Daba Fall dëkk ba Seck nekk présidente céréale. maam Ndaak Fall. céréale bi nga xam ne moom la ñuy transformé fii mooy araw bi ak euh, kii bi maïs bi maïs bi dañ koy def sunguf dañ koy def euh, araw dañ koy def cere dañ koy def caagri sunguf bi sungufu dugub bi dañ koy def araw pour laax di ko def euh, araw pour pour pour fonde di def di ci defal sangal mooy ar mooy sunguf mooy dugub bi dañ ci defar sangal pour laax dañu de am am nañu tam euh, maïs bi dañ ciy def sunguf di def caagri di ci def euh, kii caagri ak araw moom lañ ci def sunguf bi dañ ciy def njóor ni waaw sungufu dugub bi dañ ciy defar njóor ni li mën a xayma daa xam nañ moom ay ay 4 daa mën nañ ko transformer ci weer bi waaw njarta bi nag moom mooy des xam naa jaay rek ba mu jeex rek bu jeexee ñu commencé waat